bu joxoñee ci baaraamam bañ xam sikk sa muy wax ni diwa ko tax di wax mbaa mu rega ju ci ay bëtam mbaa mu tàllal làmmiñam gannaaw bu mu waxee sikk sa bañ xam ni diwa ko tax di wax yooyu yépp jëw la bu dee doxee doxinu làggi sax di ca wane ni diw mooy doxe nii loolu lépp jëw la nee nañ yàlla daa wax yowoon yonante yàlla daawut ne ko daawut baraana nga gis ko amee làmmiñ wu rafet a rafet mën a wax lool bañ di ko yéem day bu demee bay faat duma ko may mu tudd laa ilaha illallah muhammad rasulullah te dara waralu ko lu may bari la dugg ci mbiri nit ñi di ca wax lum ci wërta wax bépp jataay bu ay jullit toog nag lay teggin mooy rek ñu bañ faa dégg ñu wax ci kenn dara luñ ci warta wax ñu bañ faa jëw kenn bañ faa ndokk kenn ci musiba mu ko yàlla teg ndax ndegam nee nañu ay jullit lañ seen jataay daa war a ràññiku ci dara bañ faa xew loo xam ne lu yàlla gërëmul la bu mu doon ci wax bu mu doon ci jëf bu bëggee tuub jëw nag te fekk na comme jëwoon moom dégg na lam ko wax ba noppi kon mën naa dem jégglu ko su fekkee ne nag déggu ko woon te bu nekku maa waxoon nangam ci yow loola dina ko diis ba nga xamee ne mën naa bu dee julli sax aw naqar tax du teewlooti kon bu mu ko wax ne ko maa la waxoon nangam koy wax ne ko rek jéggal ma tooñ naa la ba noppi nag moom ci boppam mu bari la jégalu boromam mi ko aaye woon jëw te teewul mu def ko te nag baril tuyaaba ndax bu ëllëgee bu taseeg moom bis penc rek man koo fay mën naa amit yàlla baaxe ko fayal ko loolee mu ko tooñ ndax gis nga mu gis muy rëccoo ko tuub la mu ko waxan am na waaju baax ju ne del moytoo wax diw moo gën a xam diw wala diw moo gën a baax diw ndax kookee nga ne moo yées ci wàllu xam-xam wala moo yées ci mbaax bu déggee loolee xëy na mu naqari ko moo tax am na ku ñuy wax fadlu diin buñ ko mësaa laaj mbirum kenn ci boroom xam-xam yi day wax laaj leen keneen ndax man kat damay jàpp ne nit ñëpp dañoo mat sëkk ñëpp dañoo baax bu dee fi man ñëpp am maqaama yàlla nag moo xam maqaamab ku ne duma jéem a ràññeel maqaamab kee ak kee ba tey ñu bañ a fàtte ne déglu jëw kat mook jëw rekk ñoo yemoo jëw ni mu araame ci wax noonu la araame ci déglu kay déglu moo koy jëw ñoo bokk bàkkaar ba bu fekkee ku dégg nag jëw ba waaye dégg ga neexu la te soo mënoon tàggoog moom tàggoog moom kon deesu la ca bindal bàkkaar képp koo xam ne daal mi ngi jëw fi sa wet te nga mën koo tere danga ko daal di war a tere su fekkee ragaloo ko su fekkee nag ñemewoo ko ko tere nag mu naqari la bu wër ci sa xol da nga daal di jóg ci jataay ba ndegam mën ngaa jóg ngeen bokkee nekk ci lu mel ne oto mbaa beneen warukaay te mën laa wàcc dem nag bu la naqari ci sa xol rek yàlla xam ne naqari na la mu doy li ma ta moytu nag mooy di ko aaye jëw ci saw làmmiñ te fekk na ci sa xol moom la muy wax dalaa neex loolu moom ak naafiq la boole ja kon day boole am bakkaarub jëw ak naafiq bu dee tere kenn jëw na ko ko tere rek ngir yàlla waaye bu mu ko teree jëw ci kaw bëgg ñu jàpp ni moom daal ku sàmm sàmm la ba mi ngi aaye jëw sax kon moom xalaatu koo def na am yéene ju sell rek ci aaye ko jëw ba ku mu jëw nag te nga xam ne dégg na lam wax ca moom ba noppi kon daa war a dem jégglu ko loolee mu ko wax ba mu dégg ko bu fekkee jëw na ko nag waaye moom kookee ñu jëw déggut lañ wax ca moom te bu ko waxaatee ne ko maa wax ci yow nangam jéggal ma ko loola day gis ci moom lool ba xëy na sax bu dee julli naqar wa teekoo teewlu kon bu mu jaar ci wax ko lam ko waxoon na koy wax ne ko rek jéggal ma yam foofu ba noppitam nag bari la tuub digganteem ak boroomam ndax yàlla moo njëkk aaye jëw ba noppitam di bari lu baax ndax bu ko yàlla fayalut loolee mu jëw mbokkum jullitam moom mu am yiwum ko mën a faye bu ëllëgee ca pencum yàlla ma mu teg ci rambaaj rambaaj mooy nettali ay wax keneen ndax bëgg a yàq mën na am itam ci bind su bindee jot li keneen ndax bëgg a yàq mbaa sax junj junj rek buñ ci xamee lam jublu tam jublu ci yàq day mel ne dafa nett li ci làmmiñam ngir jubloo yàq moom nag daa bokk ci bàkkaar yi gën a rëy ndax moom nee nañu lim mën a yàq sax moom rambaaj jëw mënu ko yàq ndax jëw moom bu ko kooku déggut moom mu jëw rek moo cay gàddu bàkkaar rambaaj nag moom day yàq diggante nit ñi ba mujj dañuy dunde ci kaw suuf naqari ci ñoom lool lu suuf si yaatu yaatu mën naa mujj xat ci ñoom lool ndax yàquk rambaajkat boobee ba addis ba nee na inna namimata wal hiqda laa yajtamihaani fi qalbi mu'min rambaaj ak coxor duñu bokk tase ci xolub aji gëm yàlla rambaaj sax mën naa yóbbee doomi aadama yi bekkoor bu réew réy ndax ci jamonoy banu israil dañoo bekkooroon bekkoor bu mette metti muusa mi seen yonante daldi baaw ñaan yàlla ndox waaye yàlla mayu leen taw su borom ne Muusa dafa am rambaajkat boo xam ne mi ngi ci seen biir te li fekk mi ngi ci duma leen may ab taw Muusa ne ko wax ma kum doon ma génne ko su borom ne ko su ma la waxee kum doon ma itam kon rambaaj naa kon nag yéen ñëpp maase leen ci tuub rek Muusa daldi wax banu Israël ñoom ñëpp ñu maase ci tuub lépp luy xeetu rambaaj naka ñu maase ci tuub xeetu rambaaj rek yàlla may leen taw nee nañu bu la kenn nettalee di rambaaj bëgg a yàq loolee muy wax bul ko nettaliwaat keneen ndax yow itam boo ko nettaliwaatee kon rambaaj nga namu rambaaje moom itam bu la kenn nettalee loo xam ne xam nga ne lu aay la am na juróom yoo xam ne war ngaa sàmmoonteeg ñoom ba ci njëkk mooy bul gëm lam la wax ndax suñ boroom ne in jaakum faasiqum bi na ba in fatabayyanu ñaareel ba nanga ko ko aaye ndax aaye lu bon moom dañ ko waral ci képp ku ca mën dara ñetteel bi mooy na nga ko bañ ngir yàlla ndax yàlla ci boppam dafa bañ ab rambaajkat ñeenteel ba mooy bul jéem a gëstu ba xam loolee mu wax am naam amut ndax suñ boroom ne wala tajassasu kam wax ne ci moom la jële wax ja mel ni moom la la bëgg a rambaajeel nang ko moytoo yedd moom kooka mbaa nga di ko wax dara lu bokk ci loolu ndax day mel ne kon yow ci sa bopp rambaañ nga mu jàll ci fen moom it daa bokk ci bakkaar yu mag yi bàyyikoo ci làmmiñ fen nag mooy wax lu bokkut ak la am te tey ko boole ci su waxee lu bokkutal am ngir njuumte rek moom kenn du ko ca bindal bàkkaar moom nag ab julit war na koo moytu ndax safwaan nee na dañoo mas ne yonante bi ayakoonu almuminu jabaanan qaala naam ñu ne ko e ayakoonu baxilan qaala naam ayakoonu kazaaban qaala laa dañ ne yonante bi ku gëm yàlla ndax dana doon ab ragal mu ne waaw ñu ne ko ndax dana doon ab nay mu ne waaw ñu ne ko ndax dana nekk ab fenkat mu ne déedéet nettali lu amut it dañ koy jàppe rek ne aw fen la kon nit ki balaa nettali dara na nekk lu ko wóor mbaa mu jële ko ci ko wóor ne moom lu mu wax rek lu wér la waaye bu dee sikki sàkk rek daal di nettali dañ koy jàppe aw fen ba tey itam dañuy aaye ñu woo ko ci aw ñam xam ne yéene nañ ko ko mu daal di wax ne suur naa te fekk na suurut mbaa dama dul lekk ñam sàngam te fekk moom dana ko di lekk suur naa jëm wax te suurut ak ñam sàngam duma ko lekk te fekk dana ko lekk aw fen la nee nañ yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam am na jigéen ju waxan lu demee noonu mu ne ko bul boole xiif ak fen maanaam fen nag li muy bon bon dana dem ba nekk lu war du mën a ñàkk ab julit bu naree tuur deretam mbaa ñu nar a nangu alalam soo mënee wax loo xam ne amut xettali ko wax ga lu amut ngir xettali ko lu war lay doon soo ca waatee ci yàlla rek yem ci boolewoo ca luy aju ci leneen looy warlu xanaa da nga waat ci yàlla rek kafaara du la ca war tuyaaba rek nga cay am bokk na ci bàkkaari làmmiñ ngiñ ci yàlla loo xam ne da koy sikki sàkk rek mbaa wóor na ko li sax du dëgg mu daal di koy waat loolu bàkkaar bu réeré la li gën a aay nag mooy waat ngir fab alali jullit bëgg nangu alali jaambur ci yoon ba tax nga waat loo xam ne amut loolu ku ko def addis ba nee na buy taseeg boromam day fekk boromam di ko xaaroo mer kon ab jullit bu ko alali àdduna jaral dem ci yoon di waatoo te fekk mu wóor ko ne li muy waatoo kat dara amu ci bëgg alali àdduna rek moo ko ci yóbbu nay moytu itam par parloo mooy sot kenn moo xam ci wax la moo xam ci jëf la moom daal fa dëgg ga féete nay féete foofu rek waaye ba mu sot kenn ci wax was zóori ak seere neen wal fahsha ak aw ñaawteef wama ak la nga xam ne laa yaani du jariñ min qawlin ci wax aw fi'lin wala jëf wama ak la nga xam ne laa yuxni du jariñ li mu daaneele wama ak la nga xam ne laa yuxni du jariñ moog wama laa yaani jéem weesu ñooyemoo seere neen mooy seere loo xam ne wóoru ko doonte sax far na tombeeg la am waaye ba mu koy seere moom ñeme yàlla rekk taxoon mu koy seere waaye wóoru ko mooy seere neen moom nag addis ba da koo diisal lool lool ndax dane ndax duma leen xibaar bakkaar yu mag yi ba ca gën a mage yett yoon la baamu wax loolu ñu ne ko akay yow yonente bi yàlla bi qaala al ishraaku billahi wa xuquuqul walidayni wa kaana muttaki'an fa qaama fa qaala alaa wa qawlu zuuri aw shahaadatu zuuri fama zaala yukarriruha xataa qulna laytahu sakat dane mooy boole yàlla ak dara teg ca ñàkk a topp ñaari waajur daa fekkan mu sóonu nag mu dal jóg daldi ne ak wax neen mbaa seere neen xëy na ki doon nettali moo sikki sàkk ba xam yonante bi dane xawlu zóori wala dane shahaadatu zóori waaye bi mu nee alaa wa xawlu zóori wala alaa wa shahaadatu zóori moom da ko doon wax ak waxaat di ko ko wax ak waxaat ba mujj lu ne ak a neexoon mu noppi ak a neexoon mu noppi maanaam seere neen gi moo réeréy ba bi mu ko waxee da ko doon baamoo ko baamuwaat ba mujj ñoom ña fa nekkoon kenn ku ne di wax ne ak neexoon mu noppi ak neexoon mu noppi ji xëy na ci seenum xel lañ ko waxee waaye waxiwuñ ko ci seen làmmiñ lim ci teg aw ñaawteef wax lu ñaaw sun boroom da ko bañ lool addis ba nee na inna allaha yakrahu alfaahishal badi yàlla bëggut ku ñaaw làmmiñ ku ñaaw làmmiñ nag mooy koo xam ne baat yi nga xam ne daa mat a tegginal nekki lu jëm ci dem wanag ak la cay am ak joteeg góoru jigéen xeeti baat yooyu bu ko waxee ni nga xam ne rek moom la ko làng wa daan waxe naka jekk te bañ koo tegginal loolu ñaaw làmmiñ la rawante na ci teewaayu gaa yu baax yi wala ci teewaayu koo xam ne moom da ko war a ormaal niki baayam mbaa yaayam mbaa ay mbokkam ya ko mag loolu ñàkk teggin lool la te addis ba nee na law kaana alxayaau rajulan la kaana rajulan saalihan walaw kaana alfuhshu rajulan kaana rajula suu'in mu ne bu fekkoon ne kersa day jëmmi nit nga xam ne kon waaju baax lay doon waaye nag ñaaw làmmiñ moom bu doon jëmmi nit nga xam ne kon waaju bon lay doon waaye nag bu dee ki ñu waxal xelam daa gàtt ba nga xamee ne faaw rek ñu wax ci digg ba xappati mu door a xam buñ ko deful du xam kon mënees naa xappati ci digg ba wax loola ak la muy naqare naqare dégg lépp loo xam ne des ko ca bindal tuyaaba rek na koy moytoo wax ci làmmiñam ndax nee nañu am na ku deexoon ci jihaar yaayam mel na koy wax ak moom naa ko dëgg la bëgg àjjana nga jëm ndax ànd nga yonente bi jihaad ba ñu rey la ci yoonu yàlla yonent bi ne ko lu la xamal ne ci waa àjjana la bokk xëy na boo demee daana wax loo xam ne amalu ko lenn njariñ di nay ci loo xam ne mënoon na caa bañ a nay nga xam ne kon wax loo xam ne sa yoon nekku ca mbaa wax loo xam ne amalu la njariñ doonte sax bàkkaar néewu ca rekk lor la te mat naa moyoo boo naree wax rek lu la amul njëriñ na nga ko bàyyi te tudd yàlla ndax wax ju amul njëriñ moom doonti sax àggul ci araam agu ci sib day wawal xol di xañe wërsëg am na sax ñu ko araamal ndax li suñu borom ne fama za ba'd al haqq illa dhalal bi suñu borom ne gannaaw dëgg réer rek a fa nekk cànkute rek a fa nekk am nañu sukkandikoo ci wax jooju ba jàpp ne wax lu amul njariñ lu araam la làmmiñ dafa gën a doy waar rek ci mboolem cër yi moo tax mu ne nay moytoo wax ci làmmiñam lu ko amalul njariñ waaye lépp loo xam ne rek amalu ko njariñ moo xam lekk la moo xam naan la moo xam sol la mbaa leneen rek lu ko amal njariñ rek na koy moytu min xusni islaamil mar'i tarkuhu ma la yaaniih wa sa'yi ak dox wa nazari ak xool lil xaraami jëm ci aj araam wa kullima ak lépp loo xam ne xabuha bon na fil kalaami ci wax bokk na ci caay-caay yi yëkkati ay tànkam dox jëm ci lu araam mbaa xool lu araam wax ci làmmiñam wax ju ñaawit léegi lañ ko weesu woon bokk na ci xeeti caay-caay yi mata moytu lool wa ka mubaasharatihi ak niki jonjonteeg moom bil farji ci pay aw siwaahu mbaa lu dul moom wa naxoo tere nañu anutxa tudd ga bixii ci moom aydan ba tey walkat bi ak bind ga wa samaahi ak dégg ga wa isticmaalihi ak uk jëfandikoom moom lu araam na moytoo dox daal jëm ci dara lu araam ba sax ci jaar ci toolub jàmbur boo xam ne jaar ga mën na koo yàq moo xam tànkam la moo xam warukaay la araam na na ko moytu xool lu araam itam na koy moytu bu baax niki lu ko nit jege-jege la wërta xool ci moom rek bu mu ko xool ci moom niki koo xam ne day soxna mbokkam wala muy mbokk mu jigéen ci soxnaam du tee rek lam sañ a xool ci moom na ca yam muy rek kanam nga moom la sañ a xool ca moom na yem ca loola waxam nañ ne sañ naa xool kanam nga rek yem ca bu fekkee ne xool ga jubluwu ca ak bànneexu te ragalu ca fitna yëfi jàmbur yoo xam ne boroom bëggul ku xoolit na ko moytoo xool rawante na leetarub jàmbur mbaa daal fu ab jàmbur bind ay secret moom addis ba ko diisal lool wax ne man nadara fi kitaabi xayrihi bi xayri idnihi fa ka annama yanzuru fi farji ummi kuy xool bataaxelu jàmbur mbaa daal mbaa mbindum jàmbur moo xam ne rek kooku bëggul ko gis day mel ne kuy xool sawukaayu yaayam am na alxadiisu rabbaani bu wax ne man nadara ila ma laa yaxillu lahu xaramtu alayhi an nadara ila wajhi ku xool loo xam ne waroo ko woon a xool dana araamal ci yow nga gis saa jëmm ji mooy bu ëllëgee duma la may nga gis sama jëmm ju tedd ji lépp luy xeetu caay caay bu aju ci sawukaay itam na ko ca moytu niki niki njaaloo wala dara ci awraam di feeñ ci loo xam ne moo ko tey mënan naa bañ a feeñ waxan na léegi yi nga xam ne ñoo aay ci làmmiñ tàmbale ko ca jëw ak yam ca teg waaye daa baamuwaat ne na moytu tudd lu araam ci làmmiñam mbaa bind ko mbaa déglu ko bind gi lu araam ak dégg ga lu araam ci loo xam ne moo ko tey day mel ne wax ga lu araam ci làmmiñam ni làmmiñ mën a leerale noonu la xalima mën a weccee làmmiñ wax lañ bëgg wax ca làmmiñ wa kon ci gàttal lépp loo xam ne rek sañeesu ko wax ci làmmiñ sañeesu ko bind itam kon ci xalima kuy bind lu aay sax doo ko saña abal xalima gam koy binde déglu gi lu aay itam waxoon nañ ne mook wax ga ci làmmiñ ñoo yemoo rek sunu boroom tagg na lool ñi nga xam ne dañuy moytu déglu xeeti caaxaan mooy waxi caaxaan ca bam ne wa isa samihu laxwa aradu anhu ak wa isa marru bil laxwi marru kirama naam jumtukaay joo xam ne jumtukaayu fo la di génne kàddu gu neex waaye gémmiñ àndu ca di way mbaa dara loolu lañu wax ne am nañu wax dagan nga am nañu wax araam nga waaye amu ci kenn koo xam ne am nga foo sukkandikoo bu wér ci alquran mbaa ci hadis muy tegtal bu wóor a wóor ku wax dagan nga mbaa nga wax araam nga daa am rekk loo seetlu ba ne lii daal des ko war a araamal mbaa am loo seetlu ba ne lii des koo war a daganal waaye nag maase nañ ci ne jullit ñi buñ amee xewu mbëtte niki xewu céet manes na caa tëgg am dënd waaye nag duñ ca boole way mbaa taasu mbaa dara ba tey bu jullit ñi amee mbëtte niki ku tukki woon ci ñoom ñibbisi mbaa ñu nekk ci ak feet niki korite mbaa tabaski mbaa ñu xarafal benn julit mbaa am ku wàcc alquran mbaa mu tari ko ñu am ci mbégte yooyu daañu nangu ku ci tëgg am dënd waaye nag dee su ca boole way du am itam jaxasoo góor ak jigéen way maanaam yëkkati kàddu di ko neexantal ndax bëgg a bégloo xol yi loola day bu fekkee foofu rekk lañ ci jublu ñu cay wax wax yu ñaaw niñ koy defee ci xeetu xaxara mbaa lu ko nuru mbaa koo ko def ko métier su boobaa day araam li tax def ko métier araam mooy lañ nangu ab julit def lu ko fay ca day nekk lu am njariñ te lii gisuñu ci njariñ moo tax duñ nangu ku tëggulu ak sabara mbaa lu ko nuru di ca fay dara mbaa ngay woo ab woykat mu lay woyal nga di ca fay dara nga xam ne kon yëkkati kàddu di ko neexantal waaye fo taxut amul yenn baat yu ñaaw yuñ cay waxaale te kooko itam defu ko métier ñu ko cay fay loolu dagan na di tax ñu ne dagan na mooy yonent bi daanañu sadd ay way ci kanamam te dawu ci wax dara ba tey saxaaba yi dawuñu aayal wax ay bayit yoo xam ne dañ koy neexantal wala buñ toppee ci seen gëléem yi di woyal seen gëléem yi gëléem yi sawar yooyu yëpp daañu ko def yonente baa ngi fi saxaaba yi nekk fi te taxutoon ñu aayal ko bu dee nag yëkkati kàddu ga di neexantal dafa aju ci tudd yàlla mbaa tudd yonente bi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam niñ koy defee ci zikkar ak yu ko nuru kon moom lu ñu sopp lay doon bu fekkee leneen lu koy aayal amu ca gannaaw ba mu ràññee leene bokk na ci caay-caay yi dox jëm ci lu araam mbaa xool ko mbaa def dara lu araam ci sowukaay mbaa lu ko nuru mbaa boog bind ko mbaa dégg ko ci nopp daa far wax wasti amaali yi akuk jëfandikoo maanaam ci gàttal daal lu araam moom ab julit sañ koo jëfandikoo ci genn wet du ci lekk du ci naan du ci sol du ci war du ci tëdd muy wéy wadami misli muslimin ak deret yi ku mel ni ab julit aw maalihi wala alalam aw mislihi wala lu mel ni alalam ku mel ni ab julit mooy koo xam ne ab yéefar la waaye danoo fasanteeg moom wëllëre mu dund ci sunu biir nu bàyyi ko ci diineem mu aw nun ci sart yenn sartanteeg moom julit nag ak ku mel noonu ke wërta laal deretam mbaa alalam mbaa ab deram aw mi jullit bu ne dañ ko war a ormaal bañ a tuur deretam bañ a laal alalam bañ a yàq ab deram ci lu dul